démb tout récemment dañ fi gis ki nga xamante ni nii mooy doomu caari muy rëgg dem ba États-Unis don def foofu MMA njëkk na def premier combat yàlla may ko ci ndam euh, deuxième combat mu am Alain Ngalani euh, yàlla dogal ci mu am ci ndam euh, trajet boobu muy def naka nga ko gisee. bii di ñëw day amaat combat. day day bii di ñëw nii day amaat ndam. te combat boobu du yomb de. non gëm-gëm la. rëg-rëg rek <laughs> rëg-rëg ci lu ne. ñu ci bàyyi dañ na woon bii mën na cee génn mais ba ca des moo leen xaw a jaaxal. noo xam nga lu tax gaay yi di waxuma la rëg rëg mais gars yi bëri bi am ci senegal fii moo amul ci àdduna parce que boo xoolee alee ngalendu moom fi ko rëg-rëg gañee mooy fu mu ko njëkkee duur tànk ni caxabal ko mu jaaxaan dama koo gis rek ma ne Mbappa delsi na voilà xam nga da koo caxabal mu jaaxaan mu dum koy dóor ay uppercut di ko dóor ay léegi mu force pour jógaat mu laalaat beneen tànka ba waaw xam nga bëri bi am Sénégal amul fenn ci àdduna waaw moo tax ma ne bii di ñëw nii day gañewaat waaw parce que parce que bëri bi am Sénégal amul fenn Sénégal rek la am kon na ci ñeneen ak ñeneen dugg waaw nañ gëm suñu bopp xam ne affaire bi du du dara li ko wutaleeg làmb mooy tëddaay bi rek moo ak tànk bi jóg moo ko wutaleeg làmb mais comme làmbale rek parce que dóorante moom làmba dóorante la waaw kon voilà c'est comme lamba rek moo tax booy nañu dem jàngi armation dem dugg ci sport boobu baax na trop. Hmm.